ndaje bi li ko waraloon mooy dañu ñëw rejoindre prise euh, DC Lat Diop ngir jàppale ko ci jàppale gi muy jàppale président de la république ñuy wax ne marqué nañ suñu empreinte ci opposition ñëpp xam nañ ko bañ waree taxaw taxaw nañ la ñu waroon a def def nañ ko yaakaar naa ne ku taxaw xeex bañ dugal la kaso yaakaar naa ne am marqué nga say empreinte ci wàllu opposition kon nag tey dañu ñëw fas yéene ànd ak DC Lat Diop kon ñoo ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu fi teew maa ngi sant DC Lat Diop ci taxaw gi nga xam ne taxaw nañu ko di ko wax ne ñoo ngi ci kanamam ñoo ngi ci gannaawam di wax ne nag mbooleem ñi nga xam ne ñi buñ buñ gisee nit jóge ci bërëb dem ci bërëb ñuy wax ne dañ koo jënd wala ñu ne demee ñun duñu ku ñuy jënd buñ bu amee ñu ñuy jënd ñoom la te dañu wax ne ñun tànk day bank baa mu baa mu tàlli ñun nag sunu sunu tànk day tàlli mu leer nañ am na ñoo xam ne ñu ngi ci opposition bi tey di wax di wër di di wax lu nekk jël nañ encaissé nañ xaalis te taxaw ñu ngi ci karawaan yi fu nekk ñu dem fa ba ba ba pare lépp information bu nekk ñu di ko seetlu ñun nag meluñu noonu en tout cas daal li ñu war mooy bépp responsable bu ñu am ci biir dëkk bi danañ ànd ak moom taxaw ngir ndamu président de la république ci gannaaw DC la Diop maa ngi sant bu baax nag Alaaji Alioune Wilane maa ngi sant Sadibou maa ngi sant Mouhamed Cissé maa ngi sant mboolem ñi nga xam ne bëggoon nañ sama ma ñëw ànd ak ñoom jàppale président de la république nañu xam ne taxawaay bi nga xam ne amoon naa ko ci opposition bi te su ma ko waxee ñëpp danañ ko gëm ndax xam nañ. xam nañ taxawaay bi ma ci amoon loolu mooy li leer te it sama ñëw lañ gis mais dinaa indi ñëpp loolu moom na leer ña ëpp bokk ña ëpp te am doole ci opposition bi ci sama tur la ñuy jaare ñëw dugg dugg ñëw ñu ànd ak président de te loolu waxuma ko rek waxuma ko rek de DC maa ngi koy wax ne ko maa ngi coordonné ak ñoo xam ne danañ ñëw jàppale président de la république su samay pexe jooyee opposition dootu amati Touba loolu mooy sama taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant ñëpp nag mbooleem responsable yi nga xam ne nii ñëwoon nañ ànd ak man maa ngi leen sant puy maa ngi leen sant di sant bi nga xam ne ànd nga moom maa ngi sant ñëpp sama kaddu gi eh, xaw naa doy waar ndax depuis eh, trois jours ngi nii maa ngi ci terrain bi tey it suba laay dal samedi damay damay jógaat danaa fu ma demoon danaa fa jaarat danaa fexe ba ñëpp ànd président de la république nañu xam ne daal ndamul président de la république ndamul président de la république jamono ji moo ñu yitteel ci gannaaw DG la Diop loolu mooy li leer incha allahu rabbi nañu xam ne daal di maa ngi ci terrain bi Daaru Xudoos ak mboolem Touba gépp ndam maanaam ndam li nga xam ne nii moom la président war a am incha allah ci élection législative yi danañ ci la suñu loxo. Serigne Khadim Fall tey jiiti Daaru Xudoos dafa am ñaar yoo xam ne suñ ko tuddee suñ xel war a dal ci yow benn bi premier xalifa bu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. di Serigne Modou Moustapha Mbacke ibnu Khadim Rasoul fii ci Daaru Khoudoss la eh, bu ci topp nga sant Fall ñu mën ko jëlee ci Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine nga xam ne yoon wi fu mu yegg si Cheikh moo ko indi kon tey suñu xel mën na dal Fall Ndiaga bu ngi si duggsee kon ñu mën a espérer première victoire u Macky Sall dans le département ba Mbacké depuis son accession à la magistrature suprême Euh, Serigne Khadim man sama identité bu gën a wóor te gën a leer mu gën a net mooy je suis Lat Diop point ni quelqu'un d'autre ni Macky Sall ni membre de son gouvernement ci foofu laa lay woo euh, président Lat Diop dafa ñëw fii ci Touba wutu fi fi maire wutu fi député ni conseiller dafa ñëw pour soutenir xaritam Macky Sall le président de la République lu ko waral nag moo di jorul lépp ñu koy leeral parce que temps bi duñu ko may waaye su waxee ne président Macky Sall su ma woowoon tey ni sa bakkan laa soxla ma taggu sama soxna kon loolu doy na ci leeral may leen di woo yéen ñëpp sëriñ Khadim fii ci kër Lat Diop su suñu sañoon waxuma Touba mais Sénégal yëpp ànd ak ñoom ci dynamique boobu la ñuy dox lan pour lan pour may soo son excellence monsieur le président lu mu soxla ci réew mi ndax wóor na ne Macky Sall liggéeyul kenn du ko wax képp ku ko attaqué ci leneen nga koy attaqué waaye doo ko attaqué ci bilan kon gars yi bëgguñu dëgg suñu bëggoon dëgg attaqué ko ci bilan waaye képp ñi nga xam ne ne ay euh, ay Samba Soura Bali la comme nu ma koy waxee soxlawuma tudd sax seen i tur ndax kon dañu am buzz ci ñoom su fekkante ne dañ ko attaqué woon ci leneen kon ñu mën a wax waaye kenn du ko attaqué ci bilan bu ci topp ñun waa tuubaa ñu am ci part de responsabilité lu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Khadim Rasoul waxoon ne ku warale ab sëñ euh, Abdou Diouf sama kàttim mooy war nga Serigne Touba Cheikh Moustaka Mbacke waxewul noonu waaye wax ji junj doy na borom xel ndax jamono ji moo yàqu te bokk na ci ci gaa yi nga xam ne yàq nañu réseaux sociaux yi bu kilifa yu bëri duñu rag du ragal a wax. du ragal a wax mën nañoo waxe comme noonu waaye suñ waxee ñu bari dinañ ci yàqoo te ndeysaan seen yërmande dafa bari yéene wuñu askan wi yàqute looloo tax waxuñu waaye am na noo xam ne suñ ko waxee woon ñu bari dinañ fu yàqu te ku war a defare du yàq looloo dal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Al Bachir euh, loolu doy na mais loolu dafa mel ni da nga dégg sëñ Xaadim danga dégg sëriñ bi looloo tax nga def lii nga def jaarale ko ci directeur waaye di directeur ku ko màcc ku ko màcc lu mu saf ka ko màcc ko xam di nga xam ne directeur mii dina la jàpp dina la téyeto léegi ci biir jeetaay bi mu ngi doon mu mu ngi doon mu doon mu ngi doon woote mu def fi ay réalisation yu exceptionnelle Serigne Mbacké Serigne Mbacke nee naa la magal bu nga xam ne président Lat Diop dafay njëkk a teg loxoom fii en 2016 il m'avait donné 20 millions pour ñu appuyer les responsables Touba ci bésu Serigne Touba te bokkul ak kilifa diine yi boobu ba léegi 12 mois sur 12 12 mois sur 12 du ngénte du dëj du lenn loo xam ne ni njabootu bii ci Touba soxla nañ ko mu dugg ci suñuy nopp. mu dugg ci noppam su faju ko ba heure bii may wax ak yow même ci biir campagne électorale bi waaye dafa gëm ne dafa gëm ne fii ku fi mën dara wala nga am fi dara Serigne Bamba moo tax nga am ko kon da nga koo war a delloo ci moom loolu doyul mu ñëw gis situation Touba jeune bi charrette yi peel yi nanga mu ne oh loolu de waruñu loolu dinaa commencé ak yéen juróom benn téeméeri permis bu ñu demee ba def recensement bi ñu am juróom benn téeméeri permis ak ñaar fukk ak juróom mu ne garaawul Touba jaral na ma ko ba pare nag mu ne jeunesse bi nga xam ne nii dañoo am dañoo nekk ci corps de métier différent tailleur euh, menuisier métallique ak ébéniste ñoom ñëpp nang leen wóor ne maa ngi ñëw ci ñoom parce que Touba moo ma yitteel Serigne Touba moo ma yitteel avancement réew mi moo ma yitteel Macky Sall lu mu wax ci xëyu ndaw yi moo ma yitteel lu dul loolu jaral na ma sax jaay sama dal bi ma yor pour Macky Sall ab Macky Sall euh, euh, pour Macky Sall nga xam ne ni waxoon na ko ci xëyu ndaw ñi ñu mën ko atteindre pour ñu am ndam ci biir réew mi ñun waa tuuba nag dafa am lu bari lu ñuy xaar Serigne Mountakha lu lu fanaan al al allah kulli alin Macky Sall dina am ah, majorité absolue à l' assemblée nationale kenn werantewu ko waaye nag lu mu problème bi mooy waa Touba nañ ci bokk tey nag fii ci Daaru Xudóos première fu xalif général des Mourides ñoo ngi ciy ñaan jaarale ko ci yow Fall Ndiaga première victoire bu Macky Sall ci élection du 31 juillet 2022 am ci sa loxo nekk ci ñu xam ne ñu ko ko jox Lat Diop moo ci jël numéro un wala ñu amee un it ne numéro deux. kon maa ngi leen di remercier yéen ñëpp kaddu gi mënul gudd parce que temps bi ak taw bi maa ngi leen di remercier jërë ngeen jëf.